monsieur le ministre Farba Senghor ñu ngi lay nuyu. waaye maa leen di ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi tey fàttali ni yow yaa jiite aussi mbooloo askan wi alors waxtaan wi ci wàllu politique euh, boobaak léegi am na diir ci ñetti wala ñeenti. Euh, Euh, mbir euh, la daal di tënku bi ci njëkk ñu buggoon ci am sa xalaat mooy euh, li ñu bari jàpp wala ñenn ñi proposé ni Dakar dafa war am statut spécial ba ñu yegg ci fal bi ci décret présidentiel loola yow lu ci sa xalaat. li sama xalaat mooy ndakaaru moom war nañ ko seetaat nañ yoree ndakaaru ndax capital moom mooy vitrine réew mi foo toll ci àdduna bi dañuy laaj ana capital ba ndax capital bi set na ndax rafet na. ndax am na étage ndax am na mbedd yu baax ndax am na kër yu baax loolu la ñuy laaj donc capital man sa yem ak dëkk beneen nga jël Jambereng wala nga jël benn dëkk bu nekk Wélingara wala nga jël Kaolack wala nga jël Ndar mënuñu yem te soo seetloo Ndakaaru euh, depuis 1996 bi nga xamee ne parti socialiste nee nañu yow pour wàññi doole maire fi nekkoon bi Mamadou Diop ak pour fexe tam ba président Abdoulaye Wade bu jot mairie bi dañoo xar ndakaaru def ko fukk ak juróom-ñeent ay commune d'arrondissement mooy département Dakar bi ba tax na maire bi amatuloon doole doole ba mu amoon bu njëkk amatul ko woon gis nañ te maire yu ndaw yooyu maire d'arrondissement yi te ñu nekk léegi ay maire de plein exercice mais dañuy xëccoo toujours ak mairie bi ñu ngi xëccoo mbalit mi ñu ngi xëccoo euh, marché yi ñu ngi xëccoo ay pavage kenn ko nekk di xëccoo morom ma ba tax na liggéey amul foofu bien que am na loo xam ne dañ ko jël ne lii maire yi ñoo ko war a def daal di ne lii maire mag moo ko war a def. Euh, muy li jëm ci ay santé. li jëm ci éducation. et compétences yi. compétences transférées yooyu yëpp soo ko seetloo gaa yi mënuñ ci liggéey presque dara waaw ba pare tam même kii bi même euh, gestion wu mbalit bi mbalit bi heure bi ko joxee dañ koy xëccoo heure bi ñu ko joxee mairie bi heure bu ko fi joxee maire dañuy dem duñ fay gars yi. waaw école yaa ngi nii defuñu fi dara soo demee ay quartier yu mel ni Yoop Tongoor wala nga dem biir plateau nga dem euh, Rëbës wala nga dem fu mel ni Buun wala feneen wala même aan gi soo duggee ci biir quartier yi da nga yaakaar ne yow nekkuloo Dakar. te te loolu yëpp jàpp nga ne yow fal maire bi. Euh, mën na indi saafara ci jafe-jafe yooyu. waaw parce que maire bu mun ko am na dëkk yoo xam ne dañu maire bi dañ koy fal comme mu nekk ministre muy am budget annuel. ñu xam ne at mi war ngaa tabax mbedd yi dafa war nga dugal goudron fii alors biir euh, biir Pikine ñu ne ko war ngaa def tabax ci ay école war ngaa dimbale élèves nii war nga dispensaire yi war nañ ko bañ ko defar surtout sécurité bi yaa war a defar fi ay commissariat de police waa gendarmerie nga defal leen fii gérer loolu mairie bi su ko defee at mu jot danañu xam ñaata lañ ko jox ci ay milliards ak lan la liggéeyal réew mi su ko defee réew mi mën a avancé mais su fekkee ne Euh, maire bi mi ngi xuloo di jàppante ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak président bi ah maire baa ngi jàppante ak commune yu ndaw yi même soo demee ci biir mairie mairie Ndakaar laa ci biir mairie man adjoint maire laa woon Pape Diop da ngay gis am ñii ñoo ànd ak maire bi ñii wax ak maire bi ñii duñu wax ak maire bi condition yooyu su ko defee Ndakaaru du mën a nekk comme Dubaï du mën a nekk comme New York du mën a nekk comme euh, Shanghai te suñu bëggee loolu nekk nag nit ñi dañu war ñu toog ñu waxtaan ñu xool lan moo gën ci ndakaaru nan la ñuy fexe ba ndakaaru liñ ci bëgg ñu am ko ci mais way ku jóg way c'est un recul démocratique mais dafa yomb ñuy wax recul démocratique parce que démocratie boo xam ne du la yóbbu fenn doo am la nga bëgg doo doo am bànneex doo am duñ la tabaxal dara doo am kër doo am yoon doo am mbedd ndox mi salte bi nekk ci lu muy jëriñ est-ce que recul démocratique moom la Marocains yi nekk te Maroc ay roi la ñu yore est-ce que les muy Algérie muy Maroc muy Tunisie muy Égypte muy ak ak même Afrique du Sud développement bi ñu développé wu. est-ce que développement boobu da ngeen yaakaar ne su fekkoon ne président ba dafa nekk ñuy naan mairie bi mooy jël lii kii ne mooy jël lii dinañ fa yàgg bi nga xamee ne fii euh, le maire euh, Khalifa Sall demoon na wuti benn prêt ñëw te loolu romboon compétence am mu war a am mu waral am autorisation boo xam ne kii moo koy jox suñ tudd Euh, état bi. état bi mhm. ci gars yi biñ seen loxo dafa dem fenn te mairie bi lu mu liggéey lu mairie bi liggéey état bi moom moo koy jox subvention mhm. état bi kii peut le plus peut le moins donc comme ni ma ko waxee réew yi nga xam ne dañu am maire bi dañ koy nommé par maire réew yooyu dañu defal budget annuel at mu jot ñu yow lii moom nga war a liggéey liggéeyal mbedd yi liggéeyal lii liggéeyal lii su at mi jeexee ñu xool la nga liggéey ak la nga liggéeyu donc war nañu xool statut Ndakaaru. d'accord waaye parce suñ nee am nañ dem dañuy élire maire bi tam te maire bi mënul dara réew mi du dem fenn Dakar soo fi duggee ay quartier yoo xam ne sa dafay jeex mais quand même nañu fexe ba def fi statut boo xam ne maire bi dana mën a déggoo ak président de la république bi daañu mën a déggoo laa wax. Mhm. nit ñi dinañ mën a ànd liggéey ñu gis seen bopp ci li liñ liggéey. mais su xeexoo di xeexoo ci kaw di xeexoo gi suuf ñu bàyyi ko nii dam di élire maire bi amul benn njëriñ. ah ma ne dara du baax ci sa xalaat. mais ñaata maire cabinet bu nekk nit ñi fa nekk kenn ku nekk di wut dara mais dans ces conditions lan la ñuy liggéeyal Ndakaaru gars yi fonctionnement la ñuy am budget yi budget fonctionnement moo ci mm. moo ci ëpp investissement dans ces conditions là Ndakaar du muy avancé mais wutuñu mairie pour que conseillers yeeg maires yi di am xaalis ah di dem di jaagal jaagal yi di ñëw te réew mi du citoyen di ci seen bopp loolu daxul ñuy wax mairie man adjoint au maire de dakaar laa woon ak Pape Diop xam naa ko biir mairie dañ fiy xuloo cabinet yi ñii ànd dañoo maire bi ñii ànd dañoo maire bi condition yooyu ñuy liggéey d' accord yi bàyyi lu wax ñu ne recul démocratique waaye démocratique xam ne amul njëriñ ak du réew mi doon di kattan bi amul njëriñ monsieur le ministre proposition bi nag li ci xaw a tiital nit ñi mooy xëy na bu weesoo sax xañ gi muy xañ waa Ndakaaru yelleefu tànn ki leen neex mu jiite leen euh, li ci tiital ñenn ñi aussi mooy bu ñu la falee par décret xëy na suba mën nga am xiiroo gu ndaw ak njiitu réew mi ci wàllu politique mu fomp dëkkëre ba daal di la fay jëlee teg fa keneen loola itam mën naa indi xëy na instabilité eh, ci bopp mairie bi yaakaaroo ko. ma ne ku ñu fal dëkk da nga xam ne décret moo la fal da ngay liggéey pour que décret boobu la fal kala fal la mu bëgg nga def ko su soo ko mën mënta def nga xëy nga génn mais mairie bi jël maire bi nekk maire bi comme li fi xewoon ba fi xalifa nekkee ba léegi gars xeexoo xuloo la ñu nekk dara ba am ban yaram c'est pas mauvais ñuy fal kenn su Sénégal d'accord ne loi bi dañu war a defar loi boo xam ne ku fi nekk dañ lay fal ñu xool yeneen maire yu ndaw yi nan lañu def ñu gérer leen ba ñoom lan leen di jox ak lan la ñuy geere c'est bien mais ki war a liggéey Ndakaaru mais war na am pouvoir bu mu liggéeyee Ndakaaru war naa déggoo ak ki nga xam ne mooy président bi mais vraiment euh, ñu folli la c'est tout à fait normal d'ailleurs su fekkee da nga xam nga xam nga ne soo liggéeyul ñu la da liggéey mais su fekkee ne xam nga ne yow kenn mun laa foole ci cinq ans yi nooy def doo tëdd ba sa at bi jeex. waaye foole gi tam bu boobaa ñàkk liggéey mën na koo bañ a waral leneen ci wàllu politique xëy na andi ko. ma ne gis politique moom politique la. Hmm. politique ki nga xam ne moo yore pouvoir bi kooku moom mooy décider constitution Sénégal dafa ne ku gagné yaay gouverner ku ñu gagné yow ci sa bopp yow yaay yow yaay yow yaay opposé wu. ñun suñu réew yi président de mooy personnalité bi nga xam ne moo gën a màgg moom mooy moom moo yore lépp. su fekkee nag Sénégal dañoo bëgg a politiquer yëpp di xeexoo di xuloo di ŋaayoo kenn ku nekk jël ci rajo yeeg whatsapp yi di coow te duñu liggéeyal réew mi ah duñu gaaw a dabee nañu seet man waxuma ne ñun nañ nañ def statut bi hmm. dama ne nañu seet su fekkee ne statut moo gën nañu xool li xew hmm. ñu tiré ci ay enseignement nañu seet li xew ci ak yëpp depuis quatre-vingt-seize ba Mamadou Diop ñëwee fii ah ñu xaaj dëkk bi ba li fi di jaar ci ci Pape Diop ak li nga xam ne jaar ci Khalifa ndax affaire yi dox na wala doxul nañu seet su laajee ñu def statut ñu def statut ñu xool leneen parce que dañu ne soo seetee dara ba tàyyi nga dem ba tàyyi loolu mënta dem da ngay changer stratégie loolu mooy homme politique. kon daal au conseil des collectivités territoriales xalaat bi mu xalaat jaadu na. non au conseil nañ ko bàyyi mu def yoonam droit am xam nga lan dañ ko créé pour mu pour mu xalaat nit ñi nag dañ koo bañ na ko yow li la créé nga am pouvoir consultatif na nga créé pour les collectivités a créé baaxutoon sax war nañu xalaat. ñoom lañu am courage yu xelaat ñu ànd ak état bi tam nañu bàyyi ñu jox liggéey ñu xelaat ñoom heure bu ñëwee ci ñoom ñu ànd ak Macky laa wax nañu bàyyi ñu nekk ci conseil bi ñu xelaat ñoom heure bu ci Macky ñëwee jotee su boobaa ñu jël wax li nga xam ne mooy seen xelaat mais nit ñi bu ñu xoxtal kenn ñu nekk ci haut conseil seen devoir ak seen droit mooy ñu xelaat wax liñu ñu xelaat jël li ñu xelaat jox ko président la bi alors mu ngoog ñu wàccoo ak nit ñi. d'accord mais kenn mënu xalaat euh, ku bëgg ñu bëgg dugg say 18 pour bëgg la téye loolu du démocratie. d'accord démocratie c'est liberté. ñu bàyyi nit ñi ñu xalaat pour mën liggéey réew. beneen euh, mbir bi nga xam ne itam indi na xëy na ñàkk déggoo diggante nguur gi ak euh, kujje politique bi mooy nekk njiitu réew nekk njiital parti. ñaar yooyu jàpp nga ne mën nañoo wéy di ànd. dafa mën a wéy Abdou dafa doon wax ne. siège bi nga toog moom heure boo te loolu mooy dëgg su la benn parti jëlee gaa yi wóolu la ñu ñu ñu jël la investir la nga dem sénégal yi wóolu la nga palu nga nga nga nga jógee fa dem naan da ngay bàyyi parce que ay affaire démocratie ngay wut da ngay daanu rek ku fi ku fi nekk président de la république bàyyi sa parti bàyyi ko da ngay daaru ma ne la soo yegg soo soo moytuwul sax ma ne doo fi yàgg ñi nga ànd sax ñoo lay njëkk daare waaw nañu bàyyi affaire yooyu parce que Euh, Maroc ga ngi nii ma répété ko buur moo ko yore buur moo yore Maroc est-ce que Sénégal dafa gën a développé Maroc Sénégal yaa ngi nii tey doomu Sénégal yu bëri ñu nga dem Maroc koo wax ci mu ne la maa nga Maroc <coughs> est-ce que Maroc buur yore ko te ñun démocratie la yore dañuy suñu président kon am na wax yoo xam ne nañu ko nañu ko bàyyi nañu ko bàyyi teg ko fële koo xam ne daal kalafal sa kalafal ca yow yóbbu la ba pouvoir ba heure boo ko bàyyee daanu yéen a ngi nii chaque jour ngeen naan waaye président bi dañuy kii rek ministre bi nga falee dafa fàtte ñoom àndoon ah ba ñu falee président dafa fàtte ñoom àndoon bés na ngeen di wax. parce que ñi nga àndal ñi la fal heure boo leen ah, heure boo leen bàyyee da ngay daanu xam lu ñu war a def nañ fexe ba réew mi li ñu bëgg ñu ñu koy defal dañu pexe ba nit ñi di discuter parce que pouvoir dialogue moo ko yoree waxtaan. Hmm. kenn ku sa li nga xam ne indi na ko muy la jàppale su fekkee ne baaxul na kenn ko ne indi sa xalaat moo baax. loolu président daal man su ma nekkoon président du Sénégal dama koy garder. Hmm. te ki nekk président itam loolu laa koy digal na ko téye. parce la li moom bés boo ko bàyyee li di Diouf wax rek xalan ko rek. <laughs> d' accord beneen mbir bi mooy arrêté Ousmane Ngom mi nga xam ni mooy tere yenn manifestation yi eh, ca centre ville ànd nga ceem àndoo ci. xam nga dafa am ku ma ci ànd ak ku ma ci ànd. Hmm. te damay dégg wax ci organisation des droits de l'homme xam nga ñoom euh, xeexuñu ñu bëri la bëri xeexuñu pour askan wi man nii maa fi njëkk a am ci ndam arrêté Ousmane Ngom bi auprès de la Sénat mooy ñu yore di seet affaire élection parce que damay dem di manifester élection euh, locale yu 2014 yi ñu ne ñu du ngeen fi manifester man gars yi plateau yi ñoom Tambay doog ñoom yëpp ñu xeex xeex xeex ak force de l'ordre yi. ñu ne ñu ngi manifester ma dem porter plainte. ma dem ci ci kii ci ci bi Sénat bi seen rapport bi ñu paree nee nañu la Farba wax dëgg la Farba dafa ne ah arrêté Ngom bi. pour électoral bi moo ko féete kaw. donc arrêté bi mënu si dindi li code bi def donc suñ nekkee ci campagne électorale war nañu bàyyi candidat yi nga xam ne ñu ngi nekk plateau ñu manifester fa loolu la arrêté bi wax. amul benn organisation des droits de boo xam ne jël na loolu daal ne lii Farba moo ko wax lii lii déjà ndam la nañ ko yóbbu ba dañuy jéem a indi seen i seen affaire parce que parce que c'est Farba Farba moom day joxe position parce que maa ngi nii bañ lakkee sama kër yi c'est un problème d'impunité ñooñu ba léegi kenn moom suñu organisation wax ñëpp lañ fi nekkal te citoyen ñoom ñëpp ñoo yem quoi donc dama ne nañ bàyyi nax bi. léegi arrêté bi ànd nga ci bu fekkee dafay tere kon. ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, sénégalais yi bugg a manifester centre bi ñu manifester. non su fekkee ne ñoom ñun ñun man maa ngi woon su fekkee ne kii manifester moom dafa ñëw rek pour wane ne lii pour ñu dégg ko on peut comprendre. su dee nga naan da ngay attaqué palais ay grille présidentielle ña ko doon def bu njëkk dañu ñëw pour génn ci Abdoulaye Wade nañ dàq Abdoulaye pare moom lañ doon wax. moom lañ doon wax soo leen bàyyee kon dañuy ñëw dañuy ñëw songu palais bi dañ comme ñu defee lakk assemblée nationale lakk nañ ko fi lakk yoo xam ne ñu ci biir dëkk benn président ko nangu ñoom di ko xëccu képp koo xam ne nekkoon nga président de la République Sénégal doo nangu kenn dem naan day attaqué sa palais day dugg ci sa biir ay di doo ko nangu cest à loo xam ne yow nag su doon yoon doo ko nangu waroo parce que keneen moo nekk président nga ne ko dama lay xeex c'est-à-dire que nguuru Afrique li ko yàq mooy loolu gars yi même si àndoon na yow ba nga jël nguur gi bés boo commencé liggéey ñu commencé la xeex taxaw di la reeteet taxaw fële bi ñu seet ne am na loo bokkoon ak ñoom am na lu ngeen war a xeex dafa ay yoo xam ne réew bi daf ko am loolu dañ ko war a sàmm mais du ku ñëw rek dañ koy xeex pour xeex ko su dee campagne électorale la nañu bàyyi ñu nekk plateau même si àndul ak président bi ñu dugg yor seen ay drapeau dem ci nit ñi dem wër dem fu leen neex nañ ko nañ ko bàyyi loolu man am naa ci ndam nag ko organisation droit l'homme yi su fekkee ne kenn naa féqu ci dañuy wax rek pour yàlla sax nañu topp loolu leneen li nga xam ne nag moom mooy pare bi koo jóg pour jëlee fi président bi nga damay manifester sur 18 ñooñu war nañu appliquer leen arrêté Ousmane Gom jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi voilà jërëjëf maa lay sant bu baax